salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaara di leen bëggee di leen kontaane lu bare bare bare bare bare di leen wax ni tey nag ñoo ngi fii ci Saraba ah fa seenee jàkkaarloo ki nga xam ne nii mooy le Neymar de la musique sénégalaise ah muy kan El Hadj Keita mu fa seenee sargal kan Diène Kairé mi daanoon ki nga xam ne nii ah mooy Modou Anta daan ko jël bu rëy boobu El Hadj Keita fa seenee koo sargal fii ci Saraba kon tey ci biir dañ koy rukk bam nooy ndax tey ci biir dina mel ne ceebu paata patax ndax dañoo ànd ak waa Medina TV te xale yi dañoo bari doole ala alaadu mbay kasam kase a ah, kon nee na yoo ko baba yoo ko anka wudi wudi ko anka ko wudi yaada nee naa la bés bi tey dafa neex ndax dama jàkkaarloog sama mbokk bi ah muy maam numbe fu tubaari la fa benn piment de sans vitamine C de sa génération dëgg du neex ah ma ne ko Mame Ndoumbé ah tey bés bi bés bi noo ci noo ci bëggee nii daal. waaw dëgg du neex ah, bés bi dañ ciy bëgg parce que ki nga xamante ne moo aye ah di eh, doomu Médina di doomu Gueule Tapée di doomu Grand Dakar ki aye daal daf ñoo dafa dafa dafa na suñu xol bi daal. parce que nag nee naa la nit ku nekk ki ngay jàppale mooy ki je ki la jege. waaw ki la jege rek nga mën a jàppale ba tax na balaa ngay wàll yaan day fekk sa bu tëggee da ngay zaloné rek. doose def la sax. def def def say xeeti ñëpp dafa bi taxi taxal. waaw dëgg neexul nag man xam nga dama féroce ci tous les côtés. ma saajee ba zaloné rek xale du ma ñeme. nii la kaa bi demee. moo taxit mari ne nga sa bopp ba mu neex. dëgg la fi ne nii maa ngi am goût. barke Rasulullah tu es goûtable pour l'instant. goût ne nii ku ma dégusté xam ne. Oh. <laughs> dégusté nga xale bi de. ay laag yor jikko. <laughs> mais sa sañ naa. non dama garaaw. kon da jaar ne ma jaar nii. ñu daje ñu dëgg du dee <laughs> maa taxaw ak ki nga xam ne nii nag mooy mas mbay Fatou Bari Kalla ah xale bu gën bi xale bu baax bi nga xam ne nii ba mu jàppee El ba tey bàyyiwul barki rasulaay ah xale sañ-sañ bi nee naa Mass loo si bés bi. waaw bis bi bis bi dafa newoon bis boo xam daf ñoo ñor ndax euh, kiñ koy sargale daf daf ko jar ndax kooku doomu Medina la. te Medina da ko ñor te ñu nit Medina moo ñu ñor amuñu lu dul Medina. waaw kon su ko El Hadj sargalee loolu dafa war. waaw may gërëm nag yéen ñi waa Medina TV di suñu télé di di di di télé boo xam ne suñu fierté la di loo xam ne dañ koy tiitaroo yàlla na doon yàlla na dem ba doon ay télé télé télé télé ci barke Seydina Mohamed yéen seen liggéey moom macha ci biir Medina ndax képp kuy doomu Medina yaa ngi ciy sentir sa bopp. waaw ndax man doomu Medina laa waa Médina TV daal di indi seen caméra ñëw te duma leen ko sax wax kon képp kuy doon Médina yaa ngi ci sentir sa bopp kontaan nañ trop bég nañ. ah kontaan nañ ci yow de. mais li nga def ba xam nga ni xeeboo ko benn yoon. waaw gis nga de. ah oyofal ko rek. yombaloo bés bi de. daal di daal di toroxal seetaane ci ko ba mu neex. waa mais Is. Is kii sama mbokk la. kii sama mbokk la sama xarit la barke Rasulullah sama waa ji dafa gën. waa mais Saay. dama la gis ci soirée bi maa ngi bëgg mbokk àdduna bi di leen nuyu yéen ñëpp di leen wax ne tey El Hadj Keita woote. tey jii uh-huh. képp koo xam ni bëgg nga lu neex mbaa nga bëgg loo yëg sa xol lu neex rek seetaan ko Medina TV man wa sabali ak El Hadj Keita incha allahu rabbi ñu ngi waaj lu garaaw waa senegal waaj leen loolu barki Cheikhul Khadim uh-huh. kontaan naa de. waa ji bëgg naa si yow yow sa jaamu yàgg waa is nii lañ defee nee naa la tey fii dinañ ma ne ni jëqi-jëqi ñay sant wala ak aw rombam te tamay naar rundak ndagil benn yoon barke travi c'est ça waa ay ca gars yi noonu lañ koy defee ba tey paree guñ de ndaxte nee naa la ci biir mi ngi mi ngi boy fi mu toll nii waaye biti bi mi ngi fees dellu fi mu toll nii sargal jën kay da naa lay tegal nii da ak El Hadj dara du yomb soxna si na nga def mbaa yaa ngi am jàmm yow lu waraloon tey sa teewaay ci bés bi ah El Hadj Keita dafa def lu baax ndax dafa sargal Diène Kaïré Diène Kairé muy ku baax ku yaru ku teey man si moom la si këram laa nekk. waaye baax na yaru na teey na moo tax man musuma ñëw soirée waaye moom moo tax may ñëw soirée nii sa El Hadj Keita moom sàggan na ku baax a baax te du ko rëccu nag tey moom ñu nag moom ba fajar incha allah. moo waraloon sa teewaay tey. waa yow tur bi nan la. tur bi la Jalla. la waaw Asou kontaan nañ la loo wax ci Medina TV ak xeeti baax baax yi muy def. moom li ñuy def lu baax. baax la moom yàlla yéen daal si kaw si kanam rek. yàlla baax na. yoolee tous. mbaa ki yonent ah. mais li nga pëtaxal est-ce que xam nga dafa fees. mais lii dama ko xeeb. Ah. dama ko xeeb. nee nga yang wala nee nga suruñ. nee naa sarañ ndax jën kay la dafa yaru dafa baax. Baba Jaw dafa baax dafa yaru. moom lu ko yëngal xale la. ku tabee ku baax ku amul benn problème amul xol kon bu ñëwee fii tey bi su tey bi def nii ba mu baax ndax Diène ñu ne lañ ko parrainé ah tamit di sargal Diène Diouf. waaw tamit ah, loolu lu ñu def lu dul riitambal la. ah waaye na ngeen riitambal la ëpp na eh jëlal jëlal jëlal li muy yoolee non is jëlal li muy rek <laughs> daa mel ne xale yi ragaluñ de. daa mel ne xale yi ragaluñ ndax dañoo takku ba mel ne takku naanaa nee naa la El Hadj Keita du def lu ndaw moom lu mu def rek day fees barke 3500 mu jëlaat keneen soxna si naa def tur bi nan la. Asou. Assa waaw mais Assa kontaan nañ ci yow ne maa leen gën a kontaan. lu waraloon tey sa tànk fii ci bés bi. man de jën de jën kay moo ma fi indi tey bés bi tey jën moom ku yaru la ku baax la ku fonk diineem la. jox na ñëpp cër man nii sa bokk ak moom kër sa daf maa jox cër. maa koy sant di ko gërëm nag di sant Baba ak Awa. bu du woon ñoom kon du ma àgg ba fii jën nag yal na ko yàlla mayaat beneen ndam. allahumma dañoo kontaan si ndam bi woon na yàlla ñun nag dañoo ñëw. te hélas kay tamit pour bëggal jéen rek jéen kay rek moo ñu fi indi ca kanam ca jën ci kaw ca kanam ca kaw ca kanam rek. Ah. du ma sa du ma sa daanu. victoire rek ba indil ñu roi des arènes fii ñun loolu la ñu ñun. ay ca nee naa la rëkk gaa ngay neex de ci biir ngay gën a neex de waaye man maa ngi fii rek costé nee naa la bato bu duggee ci biir bato day costé ci biir yaa ma gën a noo moo tax damaa taxaw ak sama waa di nga xam ne nii ah moom gor la garmi la garala la fa tubaarikal la ndax moom Medina TV lay béggee dafa leer. loolu dafa leer ah Medina TV moo seen gisoo xanaa ah. Medina TV la. moom la de. lay nuyu bu baax a baax. Ah. waaw comme ni nga ko waxee rek. waaw tey Medina moo xewle. doomu Medina bi moo woo doomu Medina di ko sargal El Hadj Keita di sargal Diène Kairé muy champion. Ndakaaru wër ko Medina gunge ko mu dem indi ndam li kon tey yoon la ñu koy sargal fii. ndax dañ ne coow li coow léegi mu leer te moom mi moo waral coow li moo waral bés bi tey noo kontaanee si bés bi. waaw sant yàlla rek di am contentement boo xam amul limite hélas hélas amuñu fayam xam nga yàlla rek lañ koy bàyyi yàlla nañ ko yàlla na dem ba téye musique Sénégal waaw xam nga waaw parce que ñëpp am nañ si moom yaakaar ne xam nga xolam rafet na daal. léegi Diène yow dañ lay laaj lan ngay wax waa Médina ak tey niñ la ñëwee géewal la wëral la xam nga feesal la fii koo wax mu ne Diène Kaïré. waaw ñoom nii lañ def. stade rek doon ko def tey tey dañuy mottali fii rek xam nga ñoom ñoom jox nañ ma lépp kon man maa si des mu dool li gën a góorgóorlu gën a li gën a xam fi nii ñoom tey dañoo topp sa ginnaaw di la wër si ba ba ku ñu laaj mën a jéen tey moom bés bi moom yaa ko feesal yaa ko rukk bam nooy waaw Medina TV suñu sut la suñu yëf la xam nga suñu yëfu bopp la comprendre nga boo nee Medina TV rek loolu jeexal na wax di ñaan yàlla mu jëm ba di kanam di rafetlu seen liggéey aussi ak leen taxaw doomu Medina yëpp ñu ko yàlla ko féetee ak di macha allah maa ngi taxawal ki nga mooy Baba Diaw ah promoteur lépp jël barke Rasulullah moom mi nga xam ne nii moom tamit ñaawalul ba si yoon Baba Diaw maa maa looy wax ci sa di nga xam mooy Diène Kairé. ah Diène suma xaq la suma lépp la. tey suma hélas sagal rek. day jaadu ma ñëw teew. am lu leen lu mu mën a maam li sas la mais sas bu mag la xam nga dañuy ñaan yàlla yàlla def ko ca waa région macha allah El Hadj Kaïré mi nga xam ne ni tey dafay woote sargal Diène Kaïré mi nga xam ne ni yow da ngaa ne si ginnaawam loo wax si El Hadj Kaïré. waaw El Hadj suñu wax la donc suñu ànd dafa tax a desal boppam. kon tey ñun suñu woon ñëw dafa desal boppam. waaye Baba kon naa la Momo Sola. Pape Sow Momo Sola. Momo Sola ala Sow. yaa xoo bés bi yaa xoo bés bi rek. waaw noonu la amal ala suñu rakk la. wala ñu ñëw dafa mu baax. moo tax taaree ngeen bés bi macha allah yéen cant ak ngërëm ñeel na leen rek ca kaw ca kanam rek ci lu baax. Talibano Benjamin Clinton, eh, Fatu Moon, Bukuya Yumi. Bukuya Yumi Moon Fatu, Jeffrey, Aitaba, Ulubo. Bukuya Aitaba, Fifi, Fifi. Jeffrey, Jeffrey, Fatu Moon, Ulubo, Aitaba. Fatu Moon, Bukuya Mama, Uriana La, Sede. Jeffrey, Nyam, Chimani. Wala bañ na ku leen tooñ ay ca kon yi ci biir a ngi wàcc waaye nee naa la ku ñeme dañ laa dee ndax El Hadj Keita ay fan sam dañoo ñëw ci bës bi fas yéenee yëngal bés bi may laaj soxna si noo tudd. man Aïta. Aïta nga tudd. waaw Aïta lu waraloon sa teewaay tey ci bés bi. non ñun moom fii duñ ñu fi guleen El Hadj Keita ak Chara Ba ñun chaque jour ñu ngi fi. nag sa El mooy ñun ñun ñooy moom. ndax euh, dépassé nañ sax léegi tey bu ñëwee nag indil ñu sargal Diène Kaïré dañ ciy gën a kontaan ndax Diène Kaïré doomu Médina la doomu Gueule Tapée la doomu Fass la doomu fépp la dañ koy ñaanal bésam bii nii yàlla na doon ay bési bis si daraje seen naam Mohamed yow noonu la. moo tax tey nga ñëw Sadia def sa sañse bu normal. Ah, ah, takk sa casquette ah, ah. gis nga de def gis nga de moo tax mu ñëw laal sama téré. waaw gis nga war a jàppale El Hadj. du yomb. ragaloo lool de. non non no non kon ci biir nu muy mel. eh nañ dem si biir ñu def ko laax. <laughs> ban soo wala natari. non nañ ko def laaxu caaxaan garaaw. est duñ ko zirik rek ñëpp am ci. mën na nekk ñu naan si de. waaw kon neex na. loolu nag <laughs> eh, eh, eh, ba tax rek Médina TV nag ñu ngi leen di ziar bu baax. Ah. télé boobu nga xam ne seetaanul kenn yéen lu fi baax yéen a ko baaxal. jaajëf. ma taxawal nag ki nga xam ne nii nag ah mooy sama waa ji nga xam ne nii moom lu mu photo wut baaxul barki rasulaay nee naa la da ñaaw mu jël sa photo xola make up la ba yow da mujjee sax da mujjee sax togaru bojjee barki rasulaay Cheikh ziar naa la. delloo ziar sama waa ji sa mon na mi de longue date. dëgg dëgg lu neex. waaw. yaa ngi ci jàmm ba. maa ngi sant bu wér a wér ñu ngi ñuy ñëw xam nga sargal doomu ndey. muy Diène Kairé di doomu euh, di doomu Gueule Tapée di doomu Médina di doomu Sénégal tey nag bu xewlee ku mel ni El Hadj di doomu Médina di ko sargal mënuñu ñu dul ñëw teew pour dooleel ko jàppale ko nag ñu ngi kontaan ci lool bu baax ci sargal bi mu koy sargal di ñaanal Diène Kairé yàlla dolli ko ay ndam yu bari kenn bañ ko wuute ñëpp fekkee ko bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu dafa fees mais yow soo amee tey euh, conseil booy jox Diène loo koy wax. non Diène su ma amee conseil bu ma koy wax mooy lan mooy que ni benn sant nekkoon na def Medina basam jekki-jekki daw jëppal ñëwaat mais ñëwaat bi mu ñëwaat bi dama bëgg mu ñëw mu doon ñëw boo xam ne day sax parce que nit lu tax muy ñëwaat rek doy doy na conseil parce que xam na moo tax mu ñëwaat. bis bu ñëwaatee nag ba waa Médina uuf ko dooleel ko dina xam ne lépp dëgg la. Ah. waaw. saa yi mais li nga sañ sa baaxee boo ko. non li ma sañsee dama ko may jën kayre rek. comme ah. keroog li ma defoon defaat ne mayaat ko jën kayre. Ah. parce lii dafa tàng dafa tàng jër. waaw gis nga mi ngi toog ba ci suuf daal yi. ngi suus. <laughs> may ma loolu. waaye damaa taxaw ak ki xam ne ni mooy Momo ah xale bu baax mi Momo tey loolu lu lay indi ci bés bi. aa bés bi di sargal Medina di sargal jën kayre El Hadj war ko dóor fii Saraba. ñun Médina la ñu am Médina la ñuy tiitaroo Diène di suñu mbër kon bu amee ndam ñu koy sargal ñun waa Médina yëpp dañuy bàyyi suñu yitte ñëw bigee moom ba fajar incha allah tey dina tàgg dina nekk El Hadj Keita waa Médina Gueule Tapée Fass Colobane ñëpp wone leen tey daal tey fi daa war a yomb na ñëpp a ñëw ñu waaw ah. dafa mu baax dafa mu tëb sukk doox barke Serigne Bamba Depuis moi depuis ma âge ba ngay xel yéen doon doon lu yàgg dëgg lay doon ba koy dooleel di ko jàppale di xuloo ngir moom